asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalaq di leen ko baalu di feddale bu baax kóllëre gi ak cofeel gi ak yéen rawatina ñi abonné ci chaîne bi ak topp ci YouTube bi comme nañ leen koy ànd di ko def ak yéen rek jamono yëpp ci gént tey nag dañ leen a indil gént ay yoo gént ay yoo moom it dafa bokk ci di doomu aadama yi di jaxasool ak di jonjool saa yu nekk mu bokk ci seenu dundu moo tax it léeg-léeg buñ lay wan dara ñu wane la ko mu dikki la ay yoo fekk boobu am na luñ lay misaal ay yoo nag niñ ko niñ ko xamee mooy luy jur jàngoro luy tax nit kiit it du nekk à l'aise ma du nekk ci jàmm am na nu yokk ko am na da ngay bëgg daal di tàggoog moom kon noonu lay gént di deme bu dee loo xam ne ñaare lu lay luy luy sonlale luy sonlale wala loo xam ne na lay dikkee maanaam ni ngay dunde rek noonu lañ la koy wane ci gént moo tax boo xamee ak seetlu tuuti rek da xam ne lii ñu la woon ci gént ab safaan la wala lu baax la wala lu muy junj da nga ko sam xel mu mu jàngatee tuuti rek daanaka da ci xam dara kon yoo ñi ngi ko xamee ci fitna ak ci tawat ak xeet yu demee noonu moo tax ñaare ki nga xam ne day faral di ñaan aajo wala koo xam ne day listixaaral nit ki moo xam lu mu mën a doon wet mën a doon moo xam ab sëy wala da koy ñaanal ajom ngir mu faju su géntee gis ay yoo yu ko sam bul fàtte nag yow mi ñaan léeg-léeg wala yow mi listixaar buñ lay wan mën nañ laa wane jëmmi ki ngay ñaanal ñu la koy misaal waaye mën nañ la ko wane yow ci sa jëmm mel na yow yëf yi ci yow lay dal mën nañ la ko wane jëmm joo xam ne yow doo ko xam yooyu nañ ci bàyyi sa xel yooyu yëpp day dikke ci gént bu fekkee da nga gént gis ay yooyu la sam wala yooyu sam nit ki xam ne dañ koy topp rek te xam te koo bàyyi loolu day tegtale fitna fitna joo xam ne da ko topp loolu fitna la ak coono ju metti jum nekk joo xam ne tàggoogul ak moom am amma jëmmi nag boo demee ba gis yooyu taqali ko moom ñu dem bàyyi ko xamal na loolu ijaaba la li nga ko ñaanal sotti na léegi tey mu am ci bunt loolu it misaal ci ba bu fekkee koo xam ne dafa nekk ci jafe-jafe léeg-léeg mën nañ koy misaal bu jafe-jafe yi day jeex gént ay yoo sam ko ci biir mu jël pompe di leen pompe ba yooyu yëpp dee wala boog fexe na daal ba leen wala mu fexe ba tàggoog yooyu loolu dana tekki bu dee ku feebar jàngoro du juy dañ bu dee ku nekk ci jafe-jafe jafe-jafe yu muy génn la ba bu fekkee da nga gént gis ay yoo sa biir néeg loolu fitna la juy wàll si ci bu dee ci sëy la nekk fitna juy wàll si ci ab sëy sëyam la wala coono bu metti ba fekkoon ne da ngay listaxaar say gis fa dugg sab néeg fekk fa yooyu bari loolu dañ xam ne boo ci duggee dinga ci am coono bu metti a metti waaw loolu fitna la ak coono boo xam ne boo ca duggee danga ko ca am li gën danga ko mën caa dugg moo kon ba tey bokk na ci liñ war bàyyi xel bokk yi nga xam ne ay waay daw la lañ nekk barsàq koo ci gis ay yoo di ko fitnaal wala ay yoo topp ko loolu day bàkkaar buñ ko togg la isaab bu metti bu mu nekk la loolu la ñaari ko gisal tam nekk barsàq li ci gën nga defal ko ay ñaan génneel ko ay sarax defal ko fidaawu wala nga wax ko ñu wala nga wax ko koo xam ne dana ko mën a defal loolu ndax it loolu ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala yow la ko woon am na lum namm lum namm mooy ak njëggalam jaarale ko ci yow loolu nag ci bàyyi sa xel bu baax a baax ba tey ñaare bu fekkoon na koo xam ne dafa nekk yitteem dafa nekk di dem di tukki di jënti pour kay dem tukki ba tey bu géntee muy dox ay yoo sam ko wala ay yoo song ko loolu bàyyi boo mu toog ndax bu demee dana ci jële fitna ju metti loolu na ci bàyyi xelam bu baax kon yoo li ci ëpp fitna lay tegtale coono lay tegtale feebar lay tegtale ba tey koo xam ne fi mu ne nekkoon ci lalub tawat wala mu nekk feebar tëdd feebar tawat ji métti métti waxtu wu géntee ay yoo ko ba yàgg ju dem bàyyi loola tawat ja ak lu mën a doon bu fekkoon ne seytaane la bu fekkoon ne tawat yi ñu ngi woon ci ku tawat masalan gént sam ko ba yàgg yooyu dem tàggoog moom wala yooyu faatu waaye daal ala kulli xaalin tàggoog naag yooyu ba tey loole day tegtale ak wér ci moom moo xam tawat lu mën a tawate loolu lu baax la kon daal yow moom li ci ëpp fitna lay doon wala coono wala tawat waxtu woo géntee ñu dëgmal la xamal na loolu jublu na la waxtu woo géntee nga tàggoog ñoom ci gàttal nga xam ne kon loolu bu dee coono boo nekk mi ngi lay bëgg a dëddu bu dee fitna bu dee feebar it mi ngi lay bëgg a dëddu nga bàyyi ci saxel bu baax a baax kon mbokk yi di lañ leen indiloon ci tënk ci yoo ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci li ko yëkkati wasalaamaaleykum wa rahmatullahi